ilaha illa la faal la ilaha illa la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ñu ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér di ko ñaanal maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koo xam ci sëñ am Modou Mbenda yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér bu ngeen gisee sunu baay yi nga xamante ni moo nekk sunu ginnaaw ak sunu kilifa yi nga xamante ni moo nekk sunu ginnaaw muy Serigne Djili Fall ibnu sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall jàmbaar ja ñi ngi ñaan bu baax sëñ Talla Fall mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Ibrahima Fall Ndar yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér ki nga xamante ni mooy Serigne Dame Fall moom Serigne Abdou Ndakaaru mu maam Saliou Fall Daaru Xafoor ñi ngi ñaan yàlla sunu borom yokk ay leeram kon bu ko defee sëñ taala Fall ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax a baax bokk ci kër gi di seet ki nga xamante ni mooy sëñ Modou Mbenda ñi ngi ñaan yàlla sunu borom guddal aw fanam lil Mustafa kulliyati kulla sana mathan salatan wa haba bi hazana ya rabbana habli bi haqi kawsarin yumnal hayati wa ujuri kasarin rajawna ila naar fall lil jannati kawsara sarifun karimun indatuba wa kawsara ñi ngi siyaare mboolem daayira bi nga xamante ni mooy fédération Mame Cheikh Ibra Fall euh, Touba Côte bu buñ déggee fédération Mame Serigne Fall Touba Côte bu buñ ko tuddee xel yëpp dem ci sunu jàmbaar ji nekk sunu ginnaaw sunu baay sëñ mujj xelkom ñi ngi ñaan yàlla sunu borom yokk ko ci barke Mame Saliou Fall Daaru Xafoor di siyaare bu baax ki nga xamante ni mooy jëruñ liggéey bi muy sunu baay Mandiaye ñi ngi ñaan yàlla sunu borom defal ko tawféex di siyaare bu baax sunu baay Jibi Diouf ñu ngi koy siyaare bu baax eh, di siyaare bu baax ki nga xamante nii mooy sunu baay di Fall ñu koy siyaare bu baax di siyaare sunu baay baay Fall seen borom Mbawar di siyaare suñu bunt ci kër gi suñu Assane Gueye ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di kilifa gu tedd gii nekk suñu ginnaaw sëriñ Mbay Ndaw eh, di doomi sëñ Ablaay Ndaw moom sëriñ eh, Baye Cheikh Ndaw moom sëñ Babacar Ndaw jàmbaar ja kon bu ko defee xam naa dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy porte-parole eh, mbooloo mi muy sëriñ Demba fay jàmbaar yi sëñ Ablaay Fall Ndar di siyaare bu baax sëriñ Khalifa Fall ñu ngi koy siyaare bu baax di ñaan yàlla suñu borom yokk ko asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Demba bismillah aouzu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ginnaaw bu ñu ñaanalee sëriñ Muntaqa mu yàgg fi te wër yàggal fi sëriñ Amdi Moodu Mbend njabootuk sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall gi waaye di ñaanal sunu jàmbaar ja sëriñ Cheikh Jëmb Fall sunu borom yokk ay leeram te taasuñ ci barkeem di siyaar mbooleem kilifa yi fi nekk yëpp bu mu ci jiitalee sëriñ. Jili Fall moom Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar di siyaar bu baax sëriñ Mortala Fall moom Serigne Cheikh Mbacke Fall ak sëriñ Khalifa Fall moom sëriñ Amdi Modou Mbend yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu wër lool waaye di siyaar soxna Rama Fall moom Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar di leen xamal ni mi ngi ci jotaay bi di siyaar bu baax jëwriñ yi nga xam ñoom lañ bokkal liggéey bi jëwriñ ji di Serigne Mandiaye Ndiaye ànd ak Serigne Modou Diouf. xel ko mi nga xam ne ni moom la njëkk a jox fédération maam Cheikh Ibrahima Fall bi teg ko ci loxoom ci ndigalal Serigne Modou Aminata Fall waaye di siyaar bu baax sunu jëwrin Serigne Amdi Fall jëwrinu Touba Adjamé di siyaar bu baax Serigne Ndiaw Diop jëwrinu Touba Koumassi mu ànd ak sunu baay baay Jibi juuf baay Fallou maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg ko lool sopp ko lool bokk ci njabootu ko sëriñ njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp rek ndax mbir mi moom kenn ku ci nekk rek bu nu ci tuddee saw tur day mel ni matale nan ñëpp ànd ak sunu jëwrin sëriñ Ousmane Niang ak sëriñ Bàcc Seck jëwrinu fédération bu Daaru Xuddoos di siyaar bu baax sëriñ Daam Fall moom sëriñ Abdou Khadir di siyaar bu baax sëriñ Ali mu mel ni mbooloo mi fi nekk yëpp mbooloom Cheikh Ibrahima Fall la ànd ak fédération bi waaye soxna yi nga xam ne nii ñooy liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall ca Côte d'Ivoire ñu ngi fi buñ ci jiitalee soxna Ndey Mbaw jëwriñu Touba yëpp ko ànd ak soxna maam Biga Ngom jëwriñu Touba Treichville mu yóbbaale mboolem soxna yi nga xam ne nii ñoo ŋànk fédération maam Cheikh Ibrahima Fall ca Côte d'Ivoire liggéey bi nag comme niñ ko waxee ñu jàpp ne ak cant la ndax bu fekkee ne dañoo dellu si tuuti ci taarixu liggéey bi nga xam ne ni dañ ko amee woon ci ndigalal moo Modou Aminata Fall muy fédération de Baye Fall fédération de Baye Fall nag digib Cheikh Ibra bi nga xam nekk na ko di war war nañ cee gën a sant bu baax ndax bokk na ci daayira yi nga xam ne ni ñoo njëkk ci diaspora bi maanaam liggéey Côte bi ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall ci ndigalal Serigne Abdou Sakor Fall moo njëkk ci fédération ci liggéeyub Cheikh Ibrahima Fall ci biti kon loolu war nañ cee sant bu baax bu nu demee nag ba sëriñ Modou Aminta Fall yal na yàlla yokk ay leeram xalaat ne moom ci ak gisam ak bëggam booloo rek moo ko ñor mu ne addi jooju ngeen di indi day te kenn ku ne di indil sa wàll na ngeen ko dajale yëpp mu doon benn ñu defee ko noonu jël ko teg ko ci loxob sëriñ Modou xel Xelkom mu yor ko lu yàgg ba sëriñ bi yittewoo ko mu ñëw njaareem gii ak daaru xëfoor teg ko ci loxob sëriñ Mandiaye Ndiaye mi nga xam ne nii moom it kenn ku ne xam na ne. kenn la ci maam Saliou Fall kon ñu jàpp ne liggéey bi liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall la ak maam Saliou Fall waaye di ñaanal bu baax sunu jàmbaar yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi jiite woon di moo du Pen doonoon bàyyi ci ñun doon lépp ak sëriñ Moustapha mbay mi nga xam ne ni dooroon na jëwriñu fédération bi gannaaw bi fi sëñ Modou Diouf jógee ñëw njaareem dénk ko ko loolu mooy liggéey bi liggéey bi nag kenn ku ci nekk war na cee gis sa bopp ndax ci ndigalal sëriñ bi rek lañ koy defee ca jamono yu sëriñ Abdou Sakkoor ba léegi ba fii sëriñ Amdi Modou Mbenn nekk fi nekk fi xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko fi yàlla yàggal te wër lool. kon kenn ku ci nekk war naa xam ne liggéeyub Seex Ibra Fall la ci sëriñ bi la ñuy tàmbale ci sëriñ bi la ñuy yem kon ñoo ngi ciy gën a soññ bokki taali bi yëpp fépp faay nekk te duñu dégg ñi ngi la ciy gën a soññ bu baax a baax di ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ni bokkoon nañu ñoom liggéey bi te bàyyi ko fi lu mel ni soxna Roqaya Gay jëwriñu fédération de Baye Fall Touba Adjamé ak mboolem képp waxee rek nekkoon nga fi sëriñ Moussa Diaw jëwriñu Touba Koumassi di fàttaliku mboolem képp ku fi nekk rek li sëriñ Fallou naan lépp xaj na ci moo ci nekk rek kon képp ku fi bàyyi ko naa leer na xaj nga ci yërëma yërmande sëriñ bi yal na yàlla wàcce yërmande ci seen kaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jullit yi mbokki yi ñoo leen di nuyu di leen baax nuyoo bi ak siyaar bi dañ ciy jiital sëriñ Mountakha Bassirou di ñaan sa borom yàgg fi te wér lool. noonu lañ ci ñaanal sëñ Amdi moom sëñ Modou Mbenda moom Cheikh Rahma Fall suñu borom yàgg fi wér lool ak suñ suñu Tuubaa njabootu Cheikh Fall gépp kaddu yi moom xanaa du bari kaddu yi cant ak ngërëm rek ak ñaan ak dolle ko ba faaw ci barkeb Cheikh Rahane Fall muy liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey Cheikh Rahane Fall te ànd ko yëpp mel ne sant gi ci sant yàlla mooy bëgg-bëggu sëriñ bi am na ci ndax damay ne bu bu ngeen xaajali woon kenn ku nekk di indi fukki millions yi gënalu bi sëñ moom li ko li ko gënal ci ci ci ànd gi mooy mbooloo mi nga am mbooloom la tënku ci lenn bokk di liggéey di tegandoo di yëkkatandoo loolu sëñ bi bëggoon te yéen a kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax dina ci gën a soññ bu baax a baax na di ñaanit it sama borom def ci ak dollee ko ba faaw ndax euh, sëñ Ma Ndiaye nañu léegi liggéey bi fu mu toll ak li ñu def lépp ci at mi loolu nag wax dëgg yàlla képp ku xam daayira bi di xam nam daan doxee da nga xam ak yokk am na ca ku dollee ko am na ci bu baax a baax a baax ndax fii ngeen toll toll fii ngeen toll ren toll leen foon daaw kon te at mu jot ak dollee ko day am te loolu euh, dañ wax ne waxtu woo nekkee li sëñ bi bëgg rek sëñ bi day dimbaleel boppam kon nag yàlla na sëñ bi gën leen a dimbali te te gën leen a sàmm te gën leen a aar te gën leen a boole ba yéen ji ngeen am ci liggéey sëriñ bi suñu borom defal leen ko ñoo leen sant bu baax di leen gërëm tey sant soxna yi wax yàlla jàmbaar kenn amu seenu fay sëriñ bi rek si yàlla na fay bu baax a baax a baax barkeb Seex Ibra Fall ay soxna yoo xam ne yàlla takk nañ seen dëgg takk seen laxasaay ànd ak ànd leen wéttali ci lépp rek te kenn mënu leen kon nag yàlla yàlla taxaw leen sàmm leen te aar leen bu baax nag di siyaar njaboot Seex Ibra Fall gi nga xam ñoom lañ bokkal jotaay ak mbokki taalibe yi yëpp sëñ xam naa bu ñu tuddee moom mu jottali ñu ko ci mbokki taalibe yi yëpp wax dëgg yàlla suñu suñu xol daal sedd na suñu xel dal na ndax ñun amuñ gën bëgg loolu sëriñ bi bëgg rek lañ bëgg sëriñ bi lañ commencé ci lañ yem kon nag li sëriñ bëgg bu amee rek wax dëgg yàlla suñu xol day sedd waaye daal ñoo ngi wax ni waa waa waa Touba Côte d'Ivoire gépp du mën Abidjan waaye waa Touba Côte d'Ivoire gépp ñoo ngi leen gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax ñu gën a tànku tënkuwaat ci ndigalu sëriñ bi li sëñ bi bëgg nag mooy fu fu taal bi nekk dafa ñaar nañ nañ boole seen alal seen doole waxtu wuñ tollee ci liggéey bi jot lépp loo xamante ni sëriñ bi santaane rek mu ndigal lu bàyyi ko fii jëm si foofa waa abijaa gépp boole seen i jëf def li sëriñ bi bëgg te su boobaa dina yomb kon nag ñoo leen koy fàttali bu baax baax di leen soññ baax ndax loolu bokk na ci li sëriñ Cheikh Jëmu Fall mujjee wax ak yéen bokk na ci xamal na sëñ moom li mu bëgg mooy na na mbooloo mépp ànd doon benn ndax su boobaa di ko noppal waaye bu amee sëñ am ni moo di benn mi nga xam moo fi moo fi Cheikh Rafal ko noppal ndax su loolu amee waxtu fay yónnee benn ndaw lay yónnee ci kenn lay ñëw lépp sotti waaye bu ñu xaajale ko boobaa faaw ñu wër ko kon nag li sëñ bëgg mooy doon benn te li sëñ bëgg bu ñu ko defee li ñu bëgg dina am incha allah ci kàttanu yàlla ñoo ngi siyaare baax sëñ ma juuf mi nga xam ne yàlla bi ñu fekkoon ko ci loxoom ma njaay njaay mi kon borom taxaw leen baax di siyaar it soxna Rama Fall mi nga xam ne njabootu Cheikh Modou Blay Fall Ndar la nekk suñu biir jërëjëf ñoo ngi tuub tey jégg lu baax xam naa wax ko waaye nag maam Bigué Yaay Fall Touba Treichville maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen delloo seen yéeguwaay di ñaanal sëñ Seex Jëmm Fall yàlla na yàlla yokki leeram taasuñ ci barkeem di leen wax ni nag jataay bii lu ñu yàgg bëgg la wante nag tey la ko yàlla dogal ñu leen ñaanal bu baax man nag wax ji dama ci dama mënta wax bu baax wante ñoo sant nañ bu baax sant nañ bu baax sant nañ bu baax ñuy sant suñu baay ma Mandiaye mais ndaxte liggéey bi bi ànd ndoog ñun toujours fu mu toll mi ngi ñuy soññu mi ngi ñuy soññ kon nag ameel nañ ko sant bu baax wante nag liggéeyu Seex Rafal la ñuy gën di góorlu rek leen sàkk ci yéen ñaan ñaan yàlla di ko teewee ati at tatal ko ci ay Seex Rafal jërë ngeen jëf. Demba wax rek daanaka lépp jeex lépp doy na sëkk matale waaye nag liggéey bi li ma ci dolli rek mooy sant sang si nga xam ne ñoo sant Fall jiital ci sëñ Jili Fall mi ak sëñ Daam Fall mi nga xam ne mooy sama wasila fi ñu toll ah di sant mbooloo mi nga xam ne ñoo ma teg ci kanam te it muy mboolo moo neex a jiite moo xam mboolo mbooloo moo amuti dégg la amuñu dara wax dëgg yàlla ban sante daayira bu léegi kenn musu cee werante kenn musu cee def dara nuy liggéey daayira ba mu egsi fii sunu jigéen ñu baax ñi di soxna maam Bigué mi nga xam ne moo jiite jigéen ñi treize soxna nday Mbow mi jiite waa yopp gon yokk liggéeyu maam Cheikh Fall bi ba mu yegsi fii parce que liggéey maam Cheikh Fall nag bu yokkoon nan xam ne jigéen ñi ñoo ci wàll si kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm mboolem ku taalibe bu nekk Côte d'Ivoire ak soppe maam Cheikh Fall yëpp ñu ngi leen di sant di gërëm Modou Diouf mi nga xam ne ci moom laa jëlee liggéey bi nga xam ne fondation bu baaxee loo ca teg mu yokk muy sëñ Mat Diouf mi nga xam ne moo fonde woon yëf ba nga xamante ni bi fondation lépp loo ca teg rek day jëm kaw waaye du wàññeeku bu liggéey bi egsee fii rek daanaka ñoom ñii la di sant mboolem ñii ma àndal nag bu ku lim da ngay juum waaye mboolem koo xam ne nii bokk nga ci liggéeyu maam Cheikh Ibrahima Fall bii rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla sans borom guddal seenu fan. guddal seenu fan te doxal seenu liggéey ba luñ fi indi ren rek bu déwee ëpp lu ko duubul ñi ngi siyaar ñëpp di balaq ñëpp damaa mën a wër wax nag jërëjën jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh rabbi saxli sadri wa yassir li amri uqdatan min lisaani yafqahu qawli jërëjëf sëñ Tuubaa jaaraama maam Cheikh Fall di ñaanal sëriñ Muntaxa sëriñ Tuubaa mu yàgg fi te lool sëñ Amdi Moodu Mbende yàlla na fi yàlla yàggal te wéral ko mu yàgg liggéey sëriñ Tuubaa ba na ko maam ji bëggee woon mu amee ko noonu ñun nag suñuy kàddu xam naa du ci bari ndax kilifa gi moom bu waxee ba pare amatuñ ci kàddu waaye sëñ bi day faral di wax ne sa kilifa ni nga war a noppale ci jëf na nga war a noppale ci wax waaye mbégte ak kontaante mi nga xam ne eh, daayira bii di fédération Mame Cheikh Rafal nekk Côte d'Ivoire nga xam ne ay jamono nekkoon naa fa ci sama baay bu baax bi di sëñ Modou Diouf nga xam ne minante woon nañ lool xamante nañ muy sama baay bu baax dañuy feeñal sunu mbégte kontaante ci déggante gi daan déggante te yàlla tey ñu gisante xam naa bari na ñoo xam ne miin nañ sëñ Mbaye Ndaw ci groupe bi ñuy waxtaan. waaye ñoo ngi koy doog gis tey loolu nag mbégte bi ma ciy feeñal moo waral kàddu yi kon ñu ngi ciy bég bu baax a baax a baax waaye ginnaaw bi nu siyaaree sunu sëriñ si nga xam ne sëñ ji di mi cent wet ak kilifa yu baax yi euh, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare waaye ñu ngi siyaare sëñ ma Njaay Njaay mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi te mate ko lool nag liggéey bi rafet lool ñu am pasteef lool kon te noonu rek la ndax maam Cheikh Rafal kat daana dénkaane ne yoonu sëñ Bamba wi kat bëri ko ci mbartal la te ngeen cee teg seen loxo muy dem ngeen dese sag ba ndax yoon wi kat bu yokkoo bu yokkoo ñu jiñ leen ko kon loolu nañ ci góorgóorlu teg ci suñu loxo te xam ne nag duñ ci dara lépp loo xam ne def nañ ko ci rek bu buñ ci naw suñu bopp te xam ne ndimbala sëriñ Tuubaa la ndax buñ ci defee dana dem buñ ci defu dana dem buñ ci tegee dana dem buñ ci tegu suñu dem kon nañ ci teg suñu loxo ñu dese sag ba bu yokkoo ñu jiñ ñu ko kon loolu la ñuy denk suñu bopp di ko denk ñëpp te xam ne yoon wi loolu moo fi mas a nekk ci liggéey te moo fi nekk ba abadan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Euh, jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi ñi ngi santaat bu baax ku ne xam ne ne ñu ngi ci liggéey fédération Mame Cheikh Ibra Fall Touba Côte d'Ivoire liggéey bi nga xamante ni tàmbale woon na bu yàgg euh, ba nëgëni sëñ Modou Diouf Xelkom mi nga xamante ni sunu borom dogal na ginnaaw sëñ Modou Diouf la sëñ ma Mandiaye euh, jëlee liggéey bi ñoom ñaar ñu bokk genn kër gu ñuy siyaare muy kër Mame Salifa Daaru Xafoor waaye daayira bi li ko ëmb mooy liggéeyal Mame Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon ñi ngi ñaan ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall daayira fédération maam Cheikh Ibrahima Fall Touba Côte d'Ivoire mm-hmm. na sunu borom yokk ko eh, ci barkeb maam Saliou Fall borom daaru xafoor xam naa bu ko defee dañuy jox sunu baay sëñ mujj xel kom mu wax ñu liggéey bi gañ nañ ko tàmbali woon ba sunu borom dogal tey jii ñu agsi ci tombeek sunu jàmbaar jii nga xamante ni moo lu duppee Cheikh Moustapha Fall muy sëñ Amdi Modou Mbenda yàlla na fi yàgg lool ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall ngeen jëf. wax ci dana ma jafe lool ndax xol bu sedd. ndax maa ngi siyaar mbooloo mépp di siyaar sëñ jili di siyaar ku baax kii ne ci ginnaaw sëñ ndaam ak jëwriñ ma njaay mi nga xam ne ah, li ma sëñ bi ne woon yow sampab Seex ah, sampab maam Saliou Fall buy liggéeyal Seex Fall nga loola wàcc kawam ba tey rek kon loolu dafa doy sant yàlla sama xol nag day sedd ndax li nga wax ne naa wax fi liggéey bi tàmbalee man ci li ma ci xam 2000 2000 la sëñ mu Aminta bëggoon liggéey bi ñibbi ci gune yi mag ñi jàmbaar lañu woon waaye bëggoon na mu ñibbi ci gune yi ngir liggéey bi gën a mën a taxaw kon 2000 la liggéey bii tàmbali nu bokk kook gaa yu baax yi sëñ liggéey Guèye euh, ak ñeneen ñoo xam ne mënumaa lim seeni tur sëñ mu Aminta taxaw nu taxaw goo xam ne fital nu ndax mayoon nañu. ci boppam loo xam ne lu jomboon suñuy jëmm la sax ndax kat leetar yaa ngi nii mën naa ne tey ñoo ngi ci ñeen fukkeelu leetar ak ñaar bu ak ak ñaar astafurla ak benn buñu war a joxe tey kon nga xam ne topp nan ko ndax at mu ne ñaari leetar lañ ci am ñaar fukki at yi boo ko boolee yaakaar naa ñeen fukki leetar lay doon bu ma jumut kon nag mu wóor la ne lépp daanaka mi ngi ma tënk fii liggéey bi nu liggéeyal sëñ Modou Aminta ba ci sëñ seex Jëmb ba ci ku baax kii tey ñu fas yéenee tàllal suñuy loxo tey ngir jox ko liggéey maam Cheikh Ibra bii te bëgg yàgg di ko jox yàgg ko fee fekk am ngëneel yu ñum ñu dooleel bañ di ko fekk loolee la ñuy ñaanal sa kii nga xam ci lañ jëm muy sëñ Amdi Modou Mbend di sant nag Mandiaye bu baax a baax a baax ndax cant gi sax bu ma nee Mandiaye bëgg a tooñ ndax mbañaay daa ne ci bopp bi boot waaye liñ koy sante mooy daa nangoo boot di sant ñi nangoo topp ci moom ndax kat ginnaaw gi bu defoon ay dëkk ngir mu boot du yomb waaye ñi muy bu seen biir defoon i ngir mu boot leen du yomb kon foofu falaa koy sante ndax kat bañ koy tàmbali xat na jafe na metti na waaye fi mu toll tey ki gën a tuuti ci mbooloo mi sax mën naa yore liggéey bi tey ki gën a tuuti ci mbooloom mën ndax gis nañ njëriñ li ndax xam nañ ne jëf jël la lu lu way liggéey léegi yaa léeg damay toog di déglu panel bi di déglu panel bi ma ba ci àgg ma ree ma ah, di wax di xamut fu mu tàmbalee te neexaay bee tax muy waxee noonu waaye tolloon na jamono yoo xam ne liggéey bii nga dajale ko jox ko Cheikh ak jafe woon waaye te yomb na ndax looy looy joxe rek xam nga ne sa bopp nga koy joxal te ko joxee mu delloo la ko. kon nag ndok jàpp leen téye leen leen mu dem ku loo puus rek sa boppu nga puusal loo puus rek sa boppu nga puusal ndax koo xam ne loo ko jox mu joxaat la leen lu gën la nga ko jox fexeel ba boo koy jox nga fàkku sambrom nag defal nañu loo xam ne lu jafe la ndax liggéey boo xam ne kenn ku ciy diingat sa morom du mën a amut waaye néew na ndax ku ci ne sa morom doomi bàjjen nga ko def ak doomi nijaay te loolu laa bàyyi woon cee jotaay ba loolu laa fekk bu ma gisee boo ma jógee ne mbaa ku sant ngoom niwu fi damay dégg sëñ soxna soo sant ngoom man miinuma ko sax waaye manjaay ni muy ni muy waxee pas-pasam moom jàpp naa ko ci soxna ndax pas-pasam rek ndax xam naa ku sant ngoom ko am pas-pas boobu moom yombuta gis waaw loolu nag xam naa Cheikh Rafal la rek liggéeyam Cheikh Rafal la waaw liggéeyam Cheikh Rafal la kon nag noo ngi jaar ci kooku santo Ngom eh, di sant jigéen ñi nga xam ne eh, ñi ngi ci liggéeyam Cheikh Rafal bii eh, lu man luñ man ren yàlla nañ ko mën déwén lu ko ëpp di sant nag sëñ Xaadim mii ak sëñ Moussa Mbaye mi nga xam ne it xawma ko loolu damay dégg kàddoom rek ndax da di léeg-léeg ñu neexal jataay bi li ñuy neexale jataay bi mooy suuxat xol yi ci Cheikh Rafal ak gaa yu baax yi te loolu loolu daa bokk ci doxin wi ndax dafa fekk ne boo takkoon million di ko jox Cheikh tey ba naw million ba fekk ni sëñ jiili jaar na fa joxe fukki million sa kanam kon da ngay daal di jaatuwaat xëj na nag nii nu koy liggéey boole ko takk ko ba mu ay fanweeri million juróom mbaa lu ko ëpp tey nii lu ko Cheikh Ibra bëggee ndax kenn rek mën naw naa joxe liggéey bii. waaye nii ni ñu koy dajale di mbooloo kee di joxe dërëm kee joxe ñaar téeméeram kee joxe juróomam kee joxe fukkam kee joxe junneem ñu mën koo dajale ba muy fanweeri million ak juróom te kenn yëgu ko tey te tey koo ci waxoon ne tey liggéey Cheikh Rafal bi ñaata lañ ci joxe bañ ko tàmbalee léegi dana la rëcc te tey lettre yi joxe yëpp mi ngi fii ma takk mi ngi fii ma takk ca sëñ Moudou Aminta ba ci sëñ a jëm lettre yëpp a ngi fii ma takk kon loolu dafa doon dox goo xam ne dox gu sëñ bi rafetlu la ndax kat mu Mourou Aminta mas nañ mas nañoo ànd di ko jox ab liggéey waa abu bu seen ab liggéey nu yëg si bay sukk ci sëñ bi ñu bëgg maa jox liggéey bi ma leen déedéet comme sëñ baa ngi nekk jërut ngeen mu koy jox yëg si nañ ba ci kanam sëñ bi nañ joxe leen ko seen bopp gars yi buux ma buux ma xaaj ma malank ne leen déet joxe leen ko seen bopp wañ ko joxee sëñ bi ne leen abu bu xanaa daa bokkut ci Abidjan loolu ci sama kanam la ñu mujj buñ koy joxee te dañ koy indi ba sama kër sax joxe ji ko balaa ñoo yeggati daayira kon la ñu fa sëñ ba jàngal li tax ma lay nett loolu it li nu fi sëñ bi jàngal mooy ànd doon benn loolu fi sëñ bi jàngal kon nag ànd gi yàlla na ko sama borom gën a jàppale yàlla na nu sama gën a sama borom dolli nu ko wér ak pas-pas goo xam ne luñ jëf rek duñ ko xool ndax kat siyaara faal moom ku ko liggéeyal te caaxaanoo bu yëgsee ci yow nga xam ne yëgsi na ndax kat ba may ne Abidjan di ko mën a gaay tey jii ma nee Sénégal laa ko gën a jekkoo tey jii ma nee senegal la ko gën a jekkoo ku ma doon may fukki million tey ne ma fanaanil Abidjan xanaa dem nuyu sama gaay ñëw lekk sa fukki million waaye toog fa di fa wër dërëm moom amu awuma yitte te ka ma ko doon defal ca àll ba moo ma noppal fii fay muy Cheikh Ibrahima kon nag lañ fiy jànge mooy àll boobee ñu ne loo man loo man jëfal ci sëriñ bi boo wàccee fii moom moo lay téyel boppam loolu daal sëñ Xaadim ah, gàtt ka bëri ah, maa ngi jéggul sax wax ji xam naa waruma ndax man dama doon jaamu Seex Ibra ndax sëñ Saliou Fall ma yilif sëñ bi boole ma ci samp maam Saliou Fall yi liggéeyal Seex kon man wax si boppam sax waruma man joxe rek ma war sama tiitër mooy joxe waaw lii ngeen joxe nag rafet na trop trop trop trop ndax kat ci ñeen fukki junni lañ tàmbalee woon ndax loolu laa wax sëñ bi nee naa ne ñeen fukki junni lañ njëkk a nuyoo sëñ mu damint ñu dem ba di ko nuyoo million ak téeméeri junni dem ba di ko nuyoo ñaari million mu ne sëñ Fallou sëñ Fallou jegeñ si ak sëñ Moussa mu ne ah sëñ bi kat daana am jëwrin waaye yii jëwrin de waroon ak ña fa ne nu jóge ci sëñ mun Aminta keroog bi ñu ñëw di siyaare si demuk sëñ Mourou Aminta un million sept cent mille la gars yi takk jox ma mi ngi mii ci ci ci lettre yi ma jox sëñ Fallou un million cinq cent mille ya tàmbalee ci sëñ Seex jëmb ñeen fukki junni ba tey ñu yegg ci ay million di ko jox ku baax ki keroog bi ngeen ma yónnee addiya ji ñeen fukki junni ma xool ko ci sama portable dama ne roset ñeent fukki junni yi jël sama at yi bëgg cee teg mel ni dañ maa yedd ne ma ah da fàtte gaa yu baax yi yëpp ñeent fukki junni nga leen nuyoo ma jëlaat sama at yi jox ko sëñ bi buux ko nii ci sama loxo nuyoo ko ko ne ko ñeent fukki junni yii la ma bokki taalibe yi jox tàmbali seen ab liggéey fas yéene dénk seen i nopp dénk nañ seeni tànk dénk leen seeni bët loo ne faal ña nga ca loo nekkuñu ca. mu ne sëñ Mor xaw ma kan moo ci sëñ Mor ci gaañ yi ma ngi ca biir ah am Amdi ngi taxaw Amdi Ndiaye ngi taxaw ak Amdi Fall kon mu saa Ndiaye ak am Amdi Moussa Fall ñuy jox am Amdi Moussa Fall kon noonu la demee woon mu ne ana sëñ Mor sëñ Mor ne maa ngi nii mu yëkkati ñeent fukki junni ya teg ci loxol sëñ Mor kon nag bu ngeen ko bootalee eh, daal di may binduloo kay def ko ci bu ngeen ko bootalee ñaari million ak téeméeri junni tey kon man sama xol seddatina kon dafa mel ni liir bañ doon liggéey 2000 liir boobee tey màgg na am nay tànk mi ngi waaxuy dem muy fédération bi liir boobee nag jàpp ci mu dem moo gën jëm ko téye loolu de leer na ma nañ waaw leer na ma nañ Ndiaye jàppale la ngeen dem moo gën ku ko téye ndax kat boo liggéey ba sëb liggéey yegg fa mu war a yeggit keneen a koy jël continuer moom rek ndax samp ba moom rafetoon na baaxoon na te tegu na ci wu yor kon nag wax jaa ngi bëgg a bari te eh, eh, wax bu bëree nga wax loo xam ne waroo ko wax kon nag foofu laay yemale kaddu gi sëñ xaadim di la ñaanal yàlla soññe bi ngay soññe sama borom gën laa may pas-pas boo mën a soññe ah, te xam ne nag liggéey loo yi sa bopp ngay liggéeyal gars yi moom ku leen di liggéey lee nga toog ndax danañ la dingat waaye kuy li Cheikh Fall ngay liggéeyal xam ne sa bopp ngay liggéeyal kon nag kuy liggéeyal sa bopp moom puusal te dem rek bu añ bi ñëwee nga xam ne añ nga kon nag loolu laa ci wax man sëñ Jili. sëñ waaw sëñ Jili it. waaw ah, maa ngi ma Ndiaye ngi ma lay mi ngi yóbbanteeg cant waaye sëñ Jili moom sant ko dama damay damay jafe ndax dajee bokk dañ koy liggéeyal koo xam ne tey war nañ koo yót addiya ji boo àndee ci ñuy joxe addiya jooja moom sant la ndax koo xam ne bul iñaan ndax jamono mën naa dox bañ la ko yót. loolu moom loo wax la kenn duma ci diingat kon sant la ci moom daanaka mën naa am mën naa ñàkk te ñàkk la sant gi moo la gënal ah kon loolu waaye nag xam ne ca nga bokk nga téye ko dafa neex ndax bu la neexoon kat nga romb fële naa si ah sëriñ si dongo yéene foofu taalal sa loxo dem sa yoon du tee nun buñ jógee jox Seex Rafaal rek bu du tey bu ñu jógee rek jox Cheikh Ibra Fall ndax nee naa leen moom lépp lu waay man di wax ak taalibe bi rek moo am solo ak bi rek am solo ndax ku leen ab sëriñ laa bu ngeen àndee borom jumaa jii boo ne ko sëriñ mu ne la borom jumaa jii mooy sëriñ bi ah kon nag taalibe gu nangu rek moo am solo kon nag Fall loolu gars yi sant moom nangu ko rek nangu ko neel jë jërëjëf rek <laughs> bul sax waat neel jërëjëf rek. jërëjëf rek kon Mandiaye kon nag ñoo ngi sant ñëpp rek di sant sëñ Ngane man ma fàtt sëñ Ngane Guèye mais daa bokk ci mag ñi ndax dafa am loo xam ne it da ko tàmbali na nga leen ko leeral sëñ Ngane mële sëñ Mansour Guèye ah ñooñee dañoo bokk ci mag ñi nga xam ne dañoo taaraloon liggéey bi sëñ Jalte Guèye dañoo ta bokkoon ci mag ñi nga xam ne dañoo taaraloon liggéey bi taaral boo xam ne mënee su koo wax kon nag bu ngeen toogee di wax. te ñoom ñu tàmbali kon tu bokkaat ak yéen te mat mat ay am ay doom ci biir jataay bi war nañ koo leeral mbooloo mi ba mu leer leen nañ ñoom du tey jii démb woon bañ koy tàmbali loolu daal man jaay comme gàtt ke bëri daal noo ngi jéggu luñ ci jum ci sama di la rek waaye bu nu sañoon it wax loo xam ne dana ëpp loolu jërëjëf sëñ Xaadim. raw bu nu dellu see di siyaar bokki taalibe yi yëpp di jaajëfal. mboolem kilifa yi fi jottali ay kàddu ak ñin ko jottalil ñépp di siyaar sunu jëwrin jëwrinu xidmatul xadim bu Touba Côte di sëriñ Aliou Thiam mi ngi ci biir mbooloo mi ñoo ngi koy nuyooleeg bokki taalibe yi yépp di leen xamal ne xidmatul xadim moom baatub xidma buñ koy wax Cheikh Ibrahima Fall kon ñoom bu nu jógee jël baat boobu ràngoo ko di ci liggéeyal sëriñ bi loole war nañ cee sant bu baax di ko sant ci taxawaay yi nga xam ne moom la koy taxaw ci Côte ak mboolem ñi mu àndal ñëpp ti sëriñ Moustapha Fall mi nga xam ne ni moo ko dénkoon liggéey bi ñëw fii ci Touba ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey bi di jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci différents communes yi nekk fa di fa liggéeyal sëñ Touba ak seex Ibrahima Fall ñi ngi leen ciy sant bu baax a baax waaye di sant bu baax soxna Yacine Mbaye moom sëriñ Yaara Mbaye mi ngi ci. biir liggéey bi moom it bàyyi ko ba Côte d'Ivoire ñëw ci ziar bi ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal di ñaanal bu baax soxna Rama Fall moom sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar nga xam ne liggéey bi nga xam ne dégg na ko ne waa Côte ñoo fi ñëw safoo gu mu safoo waa Côte ak boole gu mu leen ci boole seen bopp loolu moo waral tànk mi kon soxna si ñu ngi lay ziar bu baax di la ñaanal fànn gudd ànd ko wér di ziar mbooleem soxna yi fi nekk yëpp képp ku ñëw ku ñëwut waa Touba TV yi nga xam ne ni ñoom tey jii ñoom ñoo fi ñëw ànd ak Serigne Khadim Madina Seye di leen sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne ak yitte ji nu jox Cheikh Ibrahima Fall ba jox ko ba defal ko talaata joo xam ne talaata maam Cheikh Ibrahima Fall la talaata ju ne ñu di ci yëngu di waxtaane ci mbiri sëriñ bi ñu ngi leen ciy sant bu baax di sant bokki taalibe yi yëpp di sant bu baax sëriñ Mbay Ndaw ñoo ngi jégalu bu baax ndax ku waroon a tudd turam la waaye ñu ngi koy sant bu baax a baax. ci liggéey bi nga xam ne jox na ko yitteem ba ci paneel bi kenn ku ci nekk gis na yitte ji nga xam ne joxe na ko te du ci tàbbal lenn lu ay njëriñ kon ñu ngi koy sant bu baax di sant mbooleem jëwriñ yi fi nekk yëpp képp kun tudd sa tur ak kun ko tuddul yëpp na la leer na yaa ngi ci biir sant gi di leen balu àq di leen balaax di jaajëfal sëriñ Basiirou Cissé di ko ñaanal liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci talaatay maam Cheikh Ibrahima Fall yi yàlla na ko ci sunu borom yokk ba mu yeggale ko fu kawe njortam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aouzu billahi min asheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital nuyu beeg ziar beeg suñ Muntaxa suñ ñaanal ko suñu borom yàggal fi la téwéral ko di ko ñaanal di ko ñaanal sangeeg seex yëpp ak suñ kilifa yi àndal ci jataay bi tey muy jataay yu mbégte ndaxte boo nekkee ci tool di liggéey ba war a jébbal sa sab liggéey day nekk uh, jataay bu am solo ñu ànd kook suñu baay ma Ndiaye Ndiaye mi ñu jiite fee ci Touba d'Ivoire ànd ak ñun liggéey bi muy fédération boo xamante ni képp kuy taalib Mame Cheikh Ibra yaa ngi ci biir waaw di jël suñu nuyu di ko teg ci loxoom rek mu jàllale ko ci taalibe yëpp di nuyu ñun fi fekk tamit di suñu kilifa xamante ni dañoo ànd ak ñoom liggéey bi ah te féete fii ci Sénégal léegi. Ah, di nuyu sunu yaay yi ñu àndal ci liggéey bi tamit ànd ak ñun liggéey maam Cheikh Fall fee ca Touba Côte d'Ivoire waaw muy nu ñu ko waxee rek jataayu mbégte daal la ak jataayu soññaate gën a soññaate ñi nga xamante nii war nañ leen ko wala war nañ leen a soññ ci liggéey maam Cheikh bi ndax te d'Ivoire yaatu na bari nay Baye Fall waaye ñun ñëpp àndoo nekk benn rek yaakaar naa ne lépp luñ bëgg ci liggéey bi dañ def lu dañ ci def lu gën a kawe suñ jort kon nag ñu ci soññ ñëpp fédération bi gën a yaatu taalibe yi gën a am ak déggoo ci seen biir ba lépp lu ñu woote ñëpp teew lu ñu santaan mën ñu mën koo jëf san te duñ ci am benn jafe te loolu xam naa ne ci yoon wul ñu ngi ci ndaxte caate yi si ginnaaw li mu noonu waaye fan yi ñu toll gis nañ liggéey mi gën a yaatu mbooloo gi mi njool mbooloo yi ñu ngi gën a ànd te it euh, xew-xew ñu koy bool di ko def benn te loolu bu am bu bu jëmee kanam rek lépp lu ñu bëgg a liggéeyal si Maam Cheikh dana dana sotti kon nag ñu ci soññ ñëpp Euh, tàmbali ko sama bopp bu xew bi ka nga xamante ni mu gën a kawe kon ñu wàcc foofu kàddu yi xam naa kàddu yi moom li fi war a wax mag ñi wax nañ ko jëriñ wax nañ ko kon ñaan yàlla rek euh, ñi jiite liggéey bi suñu borom ba lépp lu ñu am ci liggéey bi suñu borom defal lu kawe seen njort ci barke maam Sarafal jërë ngeen jëf. faal nun faal nun faal nun naw nañ la. julli ci Musa alayhi sala gërëm Serigne Touba ca kaw ngir yàlla Cheikh Ibrahima Faal bilaay nun faal nun naw lañ la lamp bi leer na dootul fay maam Cheikh Ibrahima Faal kulu rijaal yaa nekk ca kaw faal njëga yaay général ndabal murit nga borom Touba la faal Cheikh Ibra ku di murit yow lay demoo Sidi Ibrahima Faal babul murit dina wallahi yow yaay rijaal xam-xam bu rëy nga faal ku la xam doon ak rijaal mam Cheikh Ibrahima Faale yàlla la xam te di roy ku fi nangoo liggéey torox tawe da koo dagaan ci yow maam Cheikh Ibrahima Faal lamp bu nga nga borom Tuubaa moom moo la taal laa ilaha illallah maam Cheikh Faal fa laa ilaha illallah borom nga neel yi Cheikh Faal yow dong nga yow rek nga doo ñaar ci Serigne Touba ku ngërëm de su la xool rijaali seexu bamba taxawal ku mel ni seex Adama faal kooko matal maam Cheikh Ibrahima faal yaa sell ab liggéey tayaatu ab tool ku nekk mus nga sa liggéey bi Cheikh Ibrahima faal maami Amdi Moustapha ni ma rijaal amiin bi daari fata Touba li maskani daaru salaam mi bil makka wal madina di Cheikh ilaha illallah la ilaha illallah fala ilaha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 toog. moo jiite daayira sëñ Touba yi nekk foofu yëpp. moo jiite daayira sëñ Touba yi nekk foofu yëpp. ak mbooloo mi ñu àndal. ak mbooloo mi ñu àndal. ak soxna yi. ak soxna yi. ñu wax ne. ñu wax ne. ñoo ngi siyaare sëriñ bi. ñu ngi siyaare sëriñ bi. tey yeesal seen seenu njëbbal tey yeesal seenu njëbbal ak seenu taalibe ak seenu taalibe addee ji indi nañ ko sëriñ bi addee ji nga xam ne indi nañ ko liñ ci liñ njëkk fas liñ ciy njëkk a fas mooy sëriñ bi yàgg fi te wér lool mooy sëriñ bi yàgg fi te lool loolu lañ ciy fas ci addee ji loolu lañ ciy fas ci addee ji na sëriñ bi gudd fan na sëriñ bi gudd fan na wér fa mu bëgg yóbbu liggéey maam yi yóbbu ko fa fu kayo njortam fa mu bëgg liggéey yóbbu maam yi yóbbu ko fa ah, lañ ciy dolli nag lañ ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax de bi dimbali na leen ndax sëriñ bi dimbali na leen ndax am nañu ko am nañ ak yokkute. ndax daayira bii. ndax dayre bii. ba ñu koy def fédération. ban koy def fédération. lii mënutoon a am. lii mënutoon am am. ñoo am sax million. mënuñoo am sax million. dem ba tey jii. dem ba tey jii. ñu mën fee ni ñaari million. ñu mën fee indi ñaari million. ak téeméeri junni. ak téeméeri junni. ak junni. ak junni. moo moo nekk nii. ñaari million ak téeméeri junni. ak ak benn junni. waaw waaye dañuy wax ni. waaye dañoo wax ni. ndimbalu sëriñ bi rek la. ndimbalu sëriñ bi rek la. waaye du seenu jàmbaar. waaye du seenu jàmbaar. ndax xam nañ ni. ndax xam nañ ni. bu leen sëriñ bi dimbalee rek. bu leen sëriñ bi dimbalee rek. liñ bëgg danañ ko am. liñ bëgg danañ ko am. yéene yi am nag. yéene di ñu am nag. waxtu wu ñu ñëwee. waxtu wu ñu ñëwee. fekk fi sëriñ bi. fekk fi sëriñ bi. mu amug wér. mu amug wér. ñoom it ñu amug dolleeku. ñoom ñu amug dolleeku. ami xéewal. ami xéewal. ba mën a liggéeyal sëriñ bi. ba mën a liggéeyal sëriñ bi. man de maa ngi maa ngi seeral sëriñ bi ne nee moom mi ngi seere moom sëñ Jili ndax waxtu nañu dem ci ñoom ndax waxtu na ñu dem si ñoom commencé woon ko ci sëriñ nekkuk sëriñ Cheikh jëmm commencé woon ko si nekkuk sëriñ Cheikh jëmm sëriñ bi joxoon ma ndigal sëriñ bi joxoon ko ndigal na fexe ba daayira yëpp doon benn na fexe ba daayira yëpp doon benn bokk jëf bokk jëf tegandoo tegandoo xàccandoo xàccandoo dóorandoo dóorandoo boobaak léegi nag boobaak léegi nag ñoom ci seen bopp. ñoom ci seen bopp. noppal nañu. noppal nañu. noppal nañ sëriñ bi noppal nañ sëriñ bi. ndax kat bu ñu xàjjali ko woon. ndax bu ñu xàjjali ko woon. bu sëñ bi yónnee. bu sëñ bi yónnee. bu soxlaa ndaw. bu soxlaa ndaw dana sonn dafa dañ fa wër. waaw dana soxla dana dana sonn lool. waaye nag. waaye nag benn bu yónneen lay doon. benn bu yónneen lay doon ñëpp jotandoo ci. ñëpp jotandoo ci. loolu li ko waral nag. loolu li ko waral. dañoo nekk ci bëggu sëriñ bi rek. dañoo nekk ci bëggu sëriñ bi ndax sëriñ bee bëgg ñu booloo. ndax sëriñ bee bëgg ñu booloo. ñu daal di booloo. ñu booloo ñoom nag dañoo wax ne. ñoom dañoo wax ne. ña ngay toog di déglu ndigal rek. ña ngay toog di déglu ndigal fa ñu nekk ndigalu sëriñ bi moo leen fa baax li sëriñ bi bëgg li sëriñ bi bëgg ca nekk te dañoo wax ne dañoo wax ne lu mu gën a metti ci ñoom rek lu mu gën a metti ci ñoom rek gën a baax ci gën a baax ci ñoom rek la ñuy déglu ndigal rek la ñuy déglu ñoo ngi sàkku nag ñoo na leen sëriñ bi dimbali na leen sëriñ bi dimbali réew mañ ne réew mañ jàmm am ak fépp fépp ci àdduna waaye xéewalit nañ ko am nañ ko am ndax Cheikh Rafal kat ndax Cheikh Rafal kat liggéeyal ko liggéeyal ko faaw nga wér faaw nga am faaw nga am faaw nga man waaye bu ñu amee nag bu ñu amee seen xol yi bu ci dara nekk lu liggéey Cheikh yi bu si nekk lu liggéey Cheikh Ibra hmm? yi nag ñu ngi nii toog soxna Ndeye Mbaw ak soxna jëwriñ ji ak dañuy jigéen ñu jàmbaare lool ak ak ñu nekk seen ginnaaw hmm, hmm. ndax dañoo wax ne bu ñoom bu ñu jàmbaare nekk seen ginnaaw jàmbaare waaye góor ñi mënuñu leen de lépp lu ñu liggéeyal Cheikh Ibra Fall foofa soxna yi kenn mënu leen ñoo ci njëkk ñoo ciy mujj sëñ Ma Njaay Njaay mi nga xam mooy jëwriñ ji moo ko seede ñoo ñoo fay njëkk ñoo fay mu ñoo fay mujj ñoo defar ba lépp baax kon na leen sëñ bi dimbal te ñaanal leen ña fa nekk nag ñëpp di yëngu taalibi Cheikh Rafal ak soppe ñoo fa ne waaye suñu ma gumba càam bi ñu ne kalaamee moom xam ne mooy jiite liggéey Serigne Touba na nga ko ñaanal moom la mu fa bëgg lépp mat ak mbokki taalibi yëpp kon nag sëñ ma Diouf waaw ko sëñ bi ci siyaar bu wér sëñ bi di jottali sunub siyaar di ko tàmbalee ci mbooloo mi nga xam ne liggéey ndax liggéey bi njaal mi lay wax. Ah, ah, sëñ bi Fall. mbooloom waa Côte mi. góor ak jigéen. ñëpp a ngi nii toog wuy si Fall. liggéey bii nag. 2000 lañ ko tàmbali woon. di ko liggéeyal sëñ Mourou Aminta Fall. ba wàcc ci sëñ seex Jëmb. ba wàcc ku baax kii yal na ko fi yàlla gën a yàggal sunu kanam. nii nu takkoo doon benn. góor ak jigéen mag ak ndaw ndigalul sëñ bi rek lañuy ñuy déglu luñ fi indi nawunu ko buñ sañoon lu baax Côte ñu indil la ko faal te boo bu ngeen ñu ko ñaanalee ñu am ko kon nag mbooloo maa ngi nii di sam mbooloo jëwriñ jaa ngi nii di sëñ ma Mandiaye Ndiaye ànd ak jëwriñ ni sëñ Tuubaa di sëñ Makumba Caam ak jëwriñ ni sëñ ah, Xidmatul Xaadim ma ngi fi Sëñ soxna yi ki ko jiite ma nga fee di di maam Bigué Ngom ak soxna Ndey Mbaw ñoom ñëpp seen pas-pas ak ñi bootu ci ñoom seen kàddu seen lépp yëkkati nañ ko teg sa loxo ne fu sa kàddu ca Côte d'Ivoire booye boo boo wooyee ma njaay njaay rek bu soobee yàlla la nga ca soxla ten man ko danañ ko def bu soobee yàlla buñ ko mënuti danañ ko wuti def ko nga xam ne daal mbooloo maa ngi nii te yow la ñu wuy si mbooloo maa ngi nii yow la ñuy déglu fañ doon jaare gaa yu baax yi ba tey foofee leen teg suñu tànk nun xàmminuñu tur Seex Rafaal la ñuy wër te tey jii yaa nuy si sunu Seex Rafaal fii kon lépp loo xam ne Seex liggéey Seex Rafaal bii jëmm yii toog war nañ caa na bokk war caa mën liggéey faal yow la ñuy déglu sa kàddu rekk la ñuy dugg duñ ci weranteeg yow fenn foo wax nu fekk la fa waaw lii liggéey bii ñu la wax mi ngi nii tey booy xool mu ngi nii ñeent fukki leetar ak benn indi nañ ko mm-hmm. ndax at mu ne ñaari leetar lañuy indil seex Cheikh Rafal mm-hmm. tey nag suñ xol dafa sedd mm-hmm. daa seddoon sax waaye daa gën a sedd tey ndax dañ doon yóbbu liggéey yu ñu doon yóbbu ñii kër sëñ mu Aminta lañ wax bii kër sëñ seex Jëmb lañ wax fii nag kër seex Rafal la kon ndokk bi ñu tàmbalee kër Cheikh Rafal te tàmbali ko Cheikh mu Moussa ñoo ngi lay ñaanal fan wu gudd ak wér yàgg fi lool te wér mbooloo mi it faal nga ñaanal leen seen ndam gën a yàkku fii ak fan jëm yéene ji ñam ci yow faal yéene joojee ñaanal na ko ba sama borom dimbale ñu mën na koo defal liggéey bi kat noo ko yor woon waaye fii na ko wàccee yaa fa sut kon nag faal noo ngi lay ñaanal noo ngi fii njaarim di leen gunge fañ ne waaye fañ ne bu fa kenn man loolu rek faal moom lañ lay ñaanal noo ngi jéggalu nag wax ji yëkkati suñ kàddu ba ca kaw sax wóoru la faal waaye suñu xol sedd rek yàgg fi loolu te yàgg fi loolu te wér ku ne na li nga bëgg te ñaan paj ak aajo bi yàgg fi te loolu lañ ci bëgg ci ñaan man mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw dañuy tàmbalee kàddu yi rek si sëriñ Jiili mi nga xam ne moom sëriñ Modou Abdoulaye Fall te ngeen ànd ak moom mu doon digal si moom mu ànd ak yéen lu yàgg ba tey jii mu dellusiwaat siwaat ci kanamu sëriñ bi gunge leen ngeen di indi seen liggéey bu màgg bii di jaarale kàddu yi ci ci sëriñ Makumba Njaay ma Njaay Njaay ak sëriñ ma ma Makumba Makumba Caam mi nga xam ne ñooy jëwriñ yi liggéey sëñ Tuubaa ak Seera Faal bi bu nu waxee liggéey Sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall nag waxin la rek waaye liggéey bi benn rek la liggéey bi benn rek la liggéey bi maam Cheikh Ibrahima Fall la ndax lu war kër Sëñ Tuubaa rek Cheikh Ibra la war luy bëggug Sëñ Tuubaa rek Cheikh Ibra ko gàddu moo gàddu matale li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bëgg lépp kon tool bi képp ku mu si àndal si liggéey bi eh, bu geesoo gis la rek xolam day sedd bu baax sëriñ bi nee mi ngi leen di nuyu sëriñ bi ne mi ngi leen di sant bu baax a baax sëñ bi nee na mi ngi leen di gërëm te di leen jaajëfal nee na mi ngi rafetlu seen teewaay fii fi kanamam di rafetloo liggéey bii nii ngeen ko liggéeyee waaye li ëpp solo lu muy rafetlu mooy nii ko sëriñ ji li waxe sànq muy àndandoo bi nga xam ne àndandoo ngeen ko doon benn xam ne liggéey bi kat yéen ñëpp ko bokk tool bi benn rek la muy toolub sëriñ bi kon wenn mbayin rek la war a am te mbayin woowee mooy nu Cheikh Rafal jàngal mooy nu àndandoo nekk benn di yëkkateendoo di tegandoo ndax liggéey bi kat lu mu màgg-màgg ak lu mu sell-sell loolu li gënal sëriñ bi mooy ña fa nekk ñëpp tey wuyoo sëriñ bi doon wenn say àndandoo di ñëw fi sëriñ bi waaye bu fekkoon ni kenn ku ne da ngay da ngay da aw si yoonu bopp xañ na dina du baax dina baax waaye nag euh, dina am lu ko gën kon kon nag li ko gën loola ngeen def kon loola sëriñ bi ne mi ngi leen ci sant góor ñi di si sant jigéen ñi te xam ni taxawaay bu góor ñi am ci liggéey bi naka jëkk ni mu koy seetloo saa su ne taxawaay bu toll noonu wala bu ko raw soxna yi am nañ ko ndax ay jàmbaar lañ ni ngeen ko seeree si soxna yi nga xam ne ñoo teew fi kanamu sëriñ bi sëriñ bi nee mi ngi leen di nangul addiye ji mi ngi leen di nangul siyaar bi mi ngi leen di nangul it feddali gi ngeen di feddali kollëre gi ak taalibe gi ak pësteef bi mi ngi leen koy nangul bu baax te fas yéen fas yéen koo téyel bu baax a baax ba dara du si laal suuf dara si àgg suuf liggéey bi ndigal li ngeen si amoon ngir jëfe ko ndëgal loole nee na mi ngi koy yeesal si yéen foofee ngeen nekk di Touba Côte d'Ivoire ndigal li ngeen fa amoon ci liggéeyal fa suñ tubaak ak Cheikh Ibrahima Fall nee na mi ngi koy yeesal si yéen te fas yéene ko ànd ak yéen noonu ngeen ko sàkkoo ni waxtu wu ne fu ndigal jibee na ko daal di yëg mën koo jëfe ndigal loolu day nee na jox na leen ko yeesal na ko si yéen si jëw jëwriñ ñi nga xam ne ñoom ngeen àndaloon te ñu rafetlu seenub liggéey ak si mbooleem bokki taalibe yi nga xam ni moom ngeen ko àndal ngeen di ko liggéey fu mu ci bu soobee yàlla dana da ngeen ko yëg incha allahu euh, te lu ngeen bu lu ngeen jëfit dana egsi fi moom waxoon na it bu sañaan bu geesoo si toolub Cheikh Rafal bii waxtu geesoo gis leen gis ñu mel ni yéen ndax liggéey bi kat yaatu na lool yan bi nur na lu diis waaye woyof na toy xelam dal na ndax waxtu geesoo dina gis dina leen gis ci gannaawam dina leen gis si wetam si ndeyjooram ak ci càmmooñam kon loolu xel mu dal la ak xol bu sedd ak mbégte si ab taalibe buy jëfal ab sëriñam ba ab sëriñam nangul ko jëf ji ndax nun loolu rek mooy sunu bëgg ab taalibe moom loolu rekk moo di bëggam ndax kenn ku ne ba nga joxee sa bopp nga noppee sàkk si sa bopp lenn loolu ni sa lépp bàyyee nga ko sëriñ bi la nga xam ne mooy sa bëgg-bëgg mooy di gën a bëgg sëriñ bi ak di am xéewal yoo ko liggéey la rek te yàlla rek tax loolu nag sëriñ baa ngi leen koy ñaanal góor ak jigéen mu ngi leen di ñaanal si barkeb sëñ Tuubaa barkeb Cheikh Ibrahima Fall saa borom dolli leen ay xéewal sama boroom dool leen kattan akuk wér sama borom defal leen tawféex ngeen yàgg fi lool si ginnaawam mu yàgg seen kanam ngeen yàgg ànd ak moom liggéey bu maam Cheikh Rafal bii fépp fu ngeen xalaat yóbbu ko fa yàlla na ngeen ko yóbbu fu kawe foofa fu kawe seen njott fu ngeen mës a xalaat liggéey bi na ko ànd nu ko nu ko kenn mës a xalaate yàlla na ngeen ko ànde noonee barke maam Cheikh Rafal sëriñ bi am na si mbégte lool te feeñal na ko kon nag loolu doon doy na xel mu dal doy naat xol bu sedd guy waaw bu ngeen bàyyi koo fii na mbir yëpp gën a jag waaw na mbir yëpp gën a jub na xéewal yi yokk bu baax a baax a baax fa ngeen nekkit na ngeen fa mucc nag ba bu leen dara gàllankoor réew ma yàlla na fa yàlla def jàmm ak xéewal la ngeen fay sàkkul na lépp jàppandi barke maam Cheikh ma Fall sëriñ bi ñaan na ko te dana am bu soobee Cheikh Ibrahima kon nag ñun ñëpp ñu tàllal te kenn ku ne rek fas la nga gën a bëgg ndax ku jàkkaarloog Cheikh Ibrahima a ah, am na lu mu waxoon moom ku toog si jataayam mu daal di doon moom si na kenn ku ne fas li nga bëgg xam ne yaa ngi jàkkalook Seera Faal loo fas te pas-pas bu dëgër incha allahu da nga jot bu gaaw a gaaw a gaaw yàlla na sama borom defal tawfiix wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf waaw na ñëpp tàllal آمين ngeen jëf mbokki taalibe yi ba tey yéen a ngi ci fii Baye Fall gi ci ziar bi nga xamante ni daayira fédération Mame Cheikh Fall Touba Côte d'Ivoire Touba Côte d'Ivoire mi ngi fi ñu ñëw Touba Jantu Mahwa ñu ñëwoon fi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 bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen ziar jiital ci nuyoo bi Seex Muntaxa Mbakke Xaadimu Rasuul yàlla nag suñu borom yàggal lool tam ànd ko wér ba lim yéen liggéey Sëriñ tubaa lépp mu liggéey te ñu ànd koog moom yàggal fi njabaru Sëriñ Tuubaa gépp ci barke maam Cheikh Rahim Fall moom fii ñu nekk mooy kër maam Cheikh Rahim Fall sëñ Modou Mbène Fall mii fi nekk doon fi Cheikh Ibra ñaan na ko fi suñu borom yàggal lool dama ànd ko wér liggéey mu leggee ko fa te moom ci barke maam waaw moom wax ji moom maanaam ak la ci lay tàmbali ci lay yem ndax fii man de maa ngi fi mujjoon keroog ñuy taxawal miir bii wër kër gi boobu laa fi woon fekk fi mu amee defaal ak njabootu Maam Cheikh Fall gépp kenn ku ñu nekk ñu defal lépp ak kees goo xam ne da faa nekk kon buñ sunu borom maye kàttan ak wér bañ dellusiwaat fi tey fii fekk bi Maam Cheikh Fall loolu taw feex gu réy kon ñu ngi ciy sant sunu borom bu baax a baax a baax ah di ko ñaanal moom mi sunu borom jàggal ko fi lool ba li mu bëgg liggéey Maam Cheikh Fall lépp mu liggéey ko ànd koog moom ah di sant tamit taalibe Côte d'Ivoire gépp góor jigéen mag ak ndaw fu waay nekk ci biir Côte d'Ivoire ne leen wóor jataay bii ñu ngi ci fasaaleel sëñ bi sax moom ñaan na ko kon nañ dal suñuy xel rafal su suñuy njort te mel na nag kuy door a tàmbali fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa li romboon lépp nañ jàpp ab teeñ la yan baa ngi door a nekk suñu kanam kon ñëpp nañu yeesal pas-pas yi te xam ne kuy doo gestu sa ginnaaw doo xool sa jëf doo naw sa jëf da ngay mel ne kuy door a tàmbali kon man maa ngi soñ sama bopp ci loolu di leen soññ yéen ñëpp tamit bu kenn maanaam lii defoon naa ko wala defoon naa ko tey jii nañ man ne kuy door a tàmbali fas liggéey Serigne Touba ak Maam Cheikh kon yal na borom defal ndam lu koy suñu njort ba saa su nekk buñ jógee lañu lañ jëm rek yal na ci dajal ngërëmal Serigne Touba ak Maam Cheikh Rafa suñu xol sedd na di sant jiw di ñi nga xam ne ñoo fa nekk Maam Cheikh Rafa di ma Njaay Njaay Demba Faye ak ñoom ñi ko ànd ñëpp gis nañu maanaam seen taxawaay ci Côte d'Ivoire suñu xol sedd na ci lool moo tax saa yu ñu wooyee ñu sawar leen a wuy si te bu ñu leen wuy see tamit ah, eh, eh, ah, ah eh, tawfeex la ci ñun ndax kaay yi liggéey Sëriñ Tuubaa kaay yi liggéey Cheikh Rafal loolu kuñ ko wax ah boo demee tamit na nga xam ne yow am nga fa tawfeex kon moo ñoom tamit maa leen di sant cant goo xam ne cant gu ma leen di beral la ndax saa ñu yëkk yëkkati léegi liggéey maa Cheikh boole ma ci loolu nag man maa ngi sant sunu borom bu baax baax ndax liñ maa yéene yiw yéen a ma jam yéen a ma xéwal kon jërë ngeen jëf yéen ñi yëpp maa sant goor jigéen mag ak ndaw jërë ngeen jëf suñu xol sedd na yàlla nañ fi teew ay déwéni déwén ci barke maam Sara Fall ànd ki xéwal yu kawe suñu njot barke maam Sara Fall jërë ngeen jëf ngeen baal maa jërëjëf sama baay sëñ Makumba Thiam ñi ngi ñaan yàlla suñu borom guddal sa fan di sant bu baax alaaji Mbacke Faye ak waa Touba TV gépp émission bi nga xamante ni mooy talaata yi maam Cheikh Ibrahima Fall bu talaata ak jàmm incha allah dina fa jàll la nekk Baye Fall suñu abo nekk si Touba TV incha allah euh, seen euh, ñu ngi koy siyaare jàmbaar suñu Cheikh Fall Mbor suñu Baye am di Fall di siyaare nag di beral ak cant Serigne Jili Fall moom moom sëñ Mouhamadou Abdoulaye jàmbaar ja ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yokk ko yàlla suñu borom dëgal ko murid yëpp bég nañ taxawaay bi nga xamante taxawoon na ko sëñ Mourou Aminta taxawaay bi nga taxawaay bi tey jii la gën a raw kon ñu ngi ñaan sëñ Jili Fall yàlla na sunu borom guddal saw fan lépp lu sëñ Ablaye Fall di si séddale yàlla bu la ci nëppale di saare sëñ Xaadim Caam ak mboolem ñëpp ñu fi teew di ñaan eh, ku fi ni aajo yàlla ko suñu borom faj ku ni jàngoro yàlla ko borom faj riddan wa rahmatan wa barakatan min allahil badi xayru min dunya ma barke borom Tuubaa xidmatul xadim Touba Adjamé yàlla sunu borom yokk ko fédération Mame Serigne Fall yàlla sunu borom yokk ko ci barke Mame Serigne Fall ndax souvent sama mas gi dañuy nekk ca bitim réew di liggéeyal sëñ Touba wala ñuy liggéeyal eh, ki nga xamante ni mooy seen bunt buñ leen laajee addiye ci sëñ bi ñu ne ñu wut xaalis moo ñu indi ci dëkk boobu te wut xaalis ku muy wut ci bërëb di wut ba sonn doo am dara da amus tuut ba noppi rawale sa ngëm comme nii sunu yi def kon ñi ngi ñaan yàlla sunu borom guddal seen fan di soñu mbokki taalibe yëpp eh, jërë ngeen jëf